برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نوينا كتدي السلام عليكم ورحمة الله دي أندجين شي وقتان بيغا خمني شيخ محمد الماحي اليو سيسي من قرون دفع دكار دكار ci barab bi nga xamne moy maison de la culture bu Douta Seck ci fa nga xamne modi moo capitale bu Sénégal Dakar ci bés bi nga xamne man nañ ko tuddé bés fête feddali kóllëre bes delloo njukkal ki nga xamne modi Cheikh Imam Hassan Cissé Cheikh Imam Hassan Cissé mi nga xamne ku nekk xamne lim liggéey ci l'islam ku nekk xamna lim liggéeyal tariqa tijaniya ku nekk xamna lim liggéeyal Sénégal ndax taxawuna Sénégal ci ay barab yu bari taxaw na Afrique taxaw na àddina bi ci ay barab yu bëree bëree bëri moo tax ñu ko doon delloo njukkal ci bés boobu nga xam ne mu ngi tolloo nag euh, bési àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi nga xam ne moo di weeru octobre ñu invité woon nag kilifa yu bëree bëree bëri ñu ñëw tewee bés boobu Seyda Mariam ñëw na fa ànd ak euh, daara ji nga xam ne mooy daara alquran ndax ku nekk xam ne ne bàyyi karaama mooy alquran karim def na fa waxtaan ki nga xam ne it moo jiite coopération entre Turquie ak Sénégal moom it ñëwoon na fa ndax ku nekk xam na relation bi dox diggante réewam Turquie ak Imam Hassan Cissé ni mu mel ak Turquie noonu la mel ak réew yi lislaam yi bés boobu nag tolloon nag bisi alarba bi nga xam ne ci la Cheikh Imam Hassan Cissé gane àddina ci bés boobu it ci la Cheikh Imam Hassan Cissé wuy ju boromam loolu nag mi ngi ko niroo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy gane àddina mi ngi nekkoon bési altine bi muy wuy ju boromam it mi ngi nekkoon bési altine mu amoon juróom-benn fukki at ak ñett imaam si Cissé bi muy wuy ju boromam juróom-benn fukki at ak ñett la amoon kon mbokk yi ñu ànd ak Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé ci waxtaan woowu nga xam ne mi ngi xamal kan mooy imaam Assane Cissé. Eh, هذا إمامي إمام البرايا إمام أساسي وهذا إمامي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 التعطفي بنظرة تاتي لنا بظهر وبعد الحمد لله القائل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو الذي خلق هذا الإمام الذي نجتمع هذا اليوم من أجله فابتلاه فأحسن عملا وشق له اسم من الحسن لأن أعماله كلها كانت حسنة نحمد الله تبارك وتعالى على ما قدر قال تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بادئ ذي بدء نحيي السادة الحدود وعلى رأسهم خالتنا العزيزة الشيخة مريم بنت مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه خادمة القرآن ونخص بالتحية والإجلال والاحترام لأخينا الكريم محمد القرآن ممثل جميع التعاون التركي الذي عرفناه في حياة الإمام وعرفناه بعده صديقا وفيا نشكره على هذه الجهود معه ابن خالنا حبيبنا أبو بكر حياة الله وسلامه ونحيي خالنا أيضا الشيخ تيجاني كريم بي والشيخ الكريم سيد نزير تاب وجميع الحاضرين من الرجال ومن النساء نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويقدس روح الإمام ويخلد ذكراه الصالح ويكون له خلفا من اهله في اعماله وفي اتباعه وفي محبيه وفي محبيه من يتمتع الربا كي دجي من خمنا ومن دجي صفي كيوي كدجي هناك دي ليو شيخة مريم الشيخ وعن خادم القرآن ak doomam Seydi Asiya Seydi Mbaye Cissé di nuyu suñu gan bu tedd gi Ahmad Quran nga xam ne moo teewal association turki bi nekk fii nga xam ne jàppalante nit ñi ak dimbalante nit ñi moo leen tax a nekk fii xarit imam la yaarani komisidaara ji ñëw na jaalan si leetin mu ñëw ànda si ngoom ñu ngi nuyu jaraaf ak président mor ñan siyaan jéeri siise bay siis abacor conte sigan sa mariama ñat ak mboole ñi nga xam ne ñoo teew rawatina nag suñ mbokk xaat yi mauritanie lint kat yi Gassama mi nga xam ne moom moo association ñoo waral def lii mbokki taalibe yëpp ak soppe yëpp ñëw teewee ko pour fàttaliku imaam ak delloo ko njukkal waaye fàttaliku kuñ fàttewul la yàlla dafa wax ci alquran ne yàlla moo bind dund ak dee lu tax mu dund dund ak dee mu pour nattu leen pour xam kan ci yéen moo gën a rafet jëf kon dund ak dee li ko tax a jóg yépp mooy nattu jaam yi pour xam ku gën a rafet jëf ci jaam yi te xasan nag yàlla moo ko bind yàlla moo ko jël waaye natt bi nga xam ne moo tax yàlla bind jaam yëpp te jaam yëpp danañ ci jaar bu fekkee examen la dañuy wax ne moom admene ci examen bu bañ na ko ba yàlla jox ko tur al alxasan waaye xasan boobu du turam rek waaye maanaam la fi waxuma ci Cheikh Xasan boo xam ne nit kuy wax ci mbokkam déedéet damay wax ci nit yàlla nit yàlla kenn moomu am benn wàllu yàlla boo xam ne wàllu yàlla yi seen aadam mooy dañuy toroxlu ku leen di màggal sax ñu ngi rus ci yonent lañ ko jëlee dégg ngeen bàyyi di nettali yonent ba mu ubbee màkka war gëlëmam albaaw ni ko yàlla dimbalee mu ngi am kersa ba sikkiñam baa ngi laal tegi fasan tegi gëlëmam loolu tax aadaay wàllu yàlla yi dañuy suufeel seen bopp doo leen gis ñuy feeñal yëkkatiku lu may pour feeñal yëkkatiku lislaam moo tax benn wàlli yu ma ne dafa am ku doon jël loxoom bi ci barkeelu muy bañ mu dégg xaatif di ko wax ne ko bàyyi ko ndax kii li muy barkeelu moomoo ko barke yàllaa ko moom kon ki ñuy waxee tey ci néeg la juddoo ci yaay ak baay waaye ñooñu moomuñ waaye ndokk nag ba nga xamee ne néeg boobu tim l'islam rek lañ doon sonne ñoo ko préparé yar ko maamam Cheikh Ibrahim radiallahu anhu moom mooy exemplaire am bi gën a mag te ku roy ci bàyyi rek yonentu bi nga roy sama tukki bii ci umra bi rek ci jumaa yonent bi damaa daje kenn ci taalibe waa Inde la mais mas te ñëw fii Medina dañoo tasee rek mu ne ma yow loo bokk ko ñoo bokk mu ne dama doon wër rek pour xam xam moom daal ci gàttal noonu lañ nekkee ci tukki bi bañ ko ne borom da koy feebar waaye mu ne ma ba ma joxul ndigal lu ma def ma ne ko demal waaye benn baat la ma wax mu ne ma man damaa bëgg a xam Cheikh Ibrahim parce man jàpp naa ci imaam jël naa tarixa waaye li ma jaaxal lu ñu wax rek imaam dana dana tudd Cheikh Ibrahima loolu nag ku ñàkk imaam da nga ñàkk loolu ndax yu bari fekkee nañ bàyyi waaye am na lu ko yàlla defaloon ñaare waxtu wuñ tuddee dara rek dana fàttaliku xew-xew bu xewoon ci kanamam ak bàyyi mu fàttaliku lu ci bàyyi kooku yari bàyyi bàyyi nag yaram yépp yari lislaam ndax dafa wax moom ne التربية الإسلامية كما أراها تخليص النفس من كل ما سوى الله تبارك وتعالى وتسليمها لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا باي يا رب الإسلام موم نيم كو غيسه موي فخه تتل بكان بي tagale bakkan bi ci lepp lu dul yalla ba pare jebal bakkan bobu yalla ci zahir ak ci baat kooku nak ñun yar ñep yar bobu la leen yar rawatina ñi nga xamne ni yar bobu dafa nekkon seen kanam taggu ñu ko ci benn jamono li Cheikh Tidiane Serigne lay waxta ne imam fu mata dem dana déclaré ne jullit la dana déclaré ne tijaan la dana déclaré ne Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moom mooy exemple loolu ci la nekk dundam yëpp yaram kon yari Cheikh Ibrahim la bu ñu waxee yari Cheikh Ibrahim lim jëlee ci Seydi Ali lépp ci mu yari Cheikh Ibrahim yaram bu jëlee ci yaayam lépp yari Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu damay jàng rek benn ñaan yoo xam ne moom la Seydi Ali ñaanoon ñëw ma fii pour conférence kenn waxuma ne da ngay ñëw conférence man conférence kon koy xam naa ni boo war a defee moo tax damay waxtaan rek comme ni gars yi waxtaanee jege diw mu sànni ci kàddu ak teewal ma bopp teewal waa kër gi teewal suñu mat Cheikh Ahmed Tidiane ci ak ñi nga xam ne bëggoon nañoo ñëw ñëpp te ñun ñoo ñëw waaye ñoom ci ñu ngi uutu ci leneen comme ni ñu leen loo xam ne bàyyi seytaane moo ko bind bés bu imaam juddoo guddi gi mu juddoo nga gis liñ ciy jàngale mooy dañ ci gis ñaan yàlla naka la amee solo waaye boo seetee li nga doon ñaanal bi mu juddoo du la wax naka la amee waaye ku nekk mën ngaa teral sa rek dafa bind alhamdulillahi hamdan yukaafi mazidahu wa yuwaafi niamahu والصلاة والسلام على أول من وحده وحمده وبعد فقد ولد لي مولود ليلة الأربعاء السابعة العشر في الساعة العاشرة التاسعة والعشرين من ذي الحجة الجاري عام 1364 1364 في غداين إلى الإمام بمدينة كولخ وسماه شيخنا رضي الله عنه تذكرة بواجه الحسن وبالصدق فالله يرثه من بركتهما ما تقر به عيوننا ويكون مباركا مرضيا حافظا عالما عامدا عارفا كاملا وليا محفوظا محمودا منصورا مقبولا محفوفا مرزوقا ميسرا منعما مكرما عابدا زاهدا ورعا مقبلا على الله ووالدة الحسن هذا فاطمة الزهراء من شيخنا وبالعكس الزكية المرضية الصالحة التقية النقية ونرجو من الله أن يظهر فينا بركة الزهراء وعلي وابنيهما الحسن والحسين وجدهما صلى الله عليه وسلم والحمد لله على هذا الولد بارك الله فيه وعليه وقد قرأت الفاتحة عشر مرات بنية الشكر لله لما ولد هذا الولد حيث رزقني الله ولدا من شيخنا إبراهيم ومن شيخنا الحاج عبد الله رضي الله عنه ونرجو من الله ومن بركة هؤلاء أن يكون الولد مباركا في الحس والمعنى والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وظاهرا loolu la Seydi Ali bind ci guddi gi imaam juddoo muy guddi alal ci dix heures mu ne ci ñaar ci ak juróom-ñeent ci weeri aj ci mille trois cent soixante quatre ci gàddaay yi ci Madina mu ne bàyyi tuddee ko pour fàttali bàyyam moom Seydi Ali ndax bàyyam xasan la tudd ak fàttali xasan sët xasan doomi yenentu doomi fatima zahra Seydina Ali nga xam ne mooy sayyidu shababi ahli jannati mu ne yàlla na ko yàlla jox ci barke ñaar ñooñu loo xam ne suñ bët dana ci seddee dana ci dana ci dana dana ci seddee maanaam dana dana nekk bànneex ci ñun doom jooju nag mu ne yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na ko yàlla gërëm yàlla na ko yàlla def muy xaagu ku wëttu alquran wëttu na alquran bi muy ndaw muy àggsee ci tudd relation mu alquran dañu wax dara ci loolu yàlla ko yàlla def mu nekk aalim mooy ku am xam-xam waaye nit dana am xam-xam si du jëf waaye mu def ko muy aamil yàlla na ko yàlla def muy borom xam-xam buy jëfee xam-xam borom xam-xam buy jëfee xam-xamam mooy wàllu yàlla. أبو حنيفة سبعون إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء فليس لله من ولي وفك برم خم خم يجي سن خم خم دون أي ولي يكون يلا أمر ولي خم نا يلا وارم نا والي تبلا بوجا جانغام نه برم خم خم يجي سن خم خم أي ولي يلا لولو سيد علي نعم نيدا بس والي تد نك عارف mu يلا yàlla عارف عارف خم aarif نعم. xam كامل ni danaa maarifa te nekkul kaamilul maarifa ku mat maarifa mu nekk wàllu boo xam ne ci kuñ wëttu la xam nga wàllu du am asmatu asmatu mooy li yonantu yi am ab yonantu manta mooy yàlla ni nga tëlee naaw noonu la yonantu tëlee mooy yàlla wàllu yu nag wàllu yu li muy am mooy xet yàlla wëttu ko ci mooy yàlla yàlla ci musal ko ci gaafak mooy yàlla ndax gaafak mooy yàlla mooy fàtte yàlla moo tax mu ñaanal ko mu nekk wàlli boo xam ne mahfuz la loolu ku ko xam xam na loolu ci moom mu nekk mahmud kuñ gërëm mansuur di kuñ dimbalee nekk maqbul ku yàlla may xabul loolu loolu ñëpp gis nañ nekk mahbub nekk kuñ buggu ku yàlla may mbëggeel la ci xoli jaam yi loolu yu ay maqaama la ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne yàlla bu bëggee jaamam dafay déclaré wax malaaka yi ne yàlla bëgg na jaamam jiw na ngeen ko bëgg bu defee malaaka yooyu bëgg ko bu defee ñu defal ko xabul ci suuf si jaam yi koo xam ne nag jaam yi bëgg nañ la te ooteewoo lu may di jëm ci yàlla mbëggeel boobu sant yàlla la mu nekk marzuq nekk ku yàlla wërsëgal mu ne nekk ku yàlla la nekk ku yàlla jàppandal mbiram nekk ku yàlla yombal mbiram nekk ku yàlla teral nekk nag jaamukat yàlla nekk ku dëddu xam nga yii yëpp ko am mën na laa jël ba nga ba nga gis benn ci yooyu wërsëg rek am na ñu jëy xam-xam rek am na ñu jëy mbooloo am na ñu jëy waajur yu baax am na ñu jëy te loolu yëpp yari bàyyi bu ko am musal la ci ndax moom dafa wax ne bul geestoo jëm ci sa bàyyi ak ci sa maam yi ndax loolu du jëriñ dara ci lu teew wala ci liy jublu si maanaam di sukkandiku diw mooy sama maam rek waaye nag bu dara tesut lu may roy ci seen jikko te ñu am jikko yu baax nga roy ci ñoom loolu ku bëgg a mucc am waajur yu baax da nga ndax kenn mënta mucc lu ma nga am référence yu wér yoo war a sukkandiku moo tax mu ñaanal ko na nekk jaamukat yàlla waaye na nekk ku dëddu tim at na nekk ku dëddu sax dëddu mën naa passé dëddu rek àddina ndax boo dëddoo àddina jublu àllaaxira ba tey yow dëddoo góor ñi dañoo wax ne al aarifu laa dunyaa lahu wa dunyaahu li aaxiratihi wa aaxiratuhu li rabbihi góor yàlla yi nee nañ ku xam yàlla amul àddina lu tax parce que àddinaam àllaaxiraam moo ko moom amul àllaaxira sax ndax àllaaxiraam ci boromam moo ko moom ku àgg foofu àgguloo ci dëtt imaam ku nekk xam na ne ku dëttu la nekk ku fegu fegu mooy lan li Abdullah ibn Umar wax ne kunna nasruku tisaata ashar al halal maxaafata an naqaa fi al haram dafa wax ne ñun saxaaba yonent bi daan nañ moytandiku li dagan bu fekkee fukk la ñoom daan nañ moytandiku juróom-ñeent yi pour ragal a àgg ci lu xaraam maanaam am na loo xam ne dara nekk ci waaye dugg ci mën na laa àggale ci lu dara nekk loolu mooy fekk am na xadis yoo xam ne yonent bi wax ne kun wari an tukun aabada naa fi xadis bi imaam bëggoon la di gudd nekkal ku fegu nga nekk jaam bi gën a jaamu boromam bokk na ci xeetu fegu li ahmad ibn hanbal def ahmad ibn hanbal borom ngër la ci ngër yi dañ ko wax ne lu tax doo lekk xaal mu ne xaw ma nu ko yonantu daan lekkee loolu mooy fegu xaal dagan na lekk ko dagan na waaye mu bëgg naa roy yonantu ba li muy lekk sax dafa war a xam ni ko yonantu doon lekkee mu ne xamul ni yonantu daan lekkee xaal moo tax du lekk xaal loolu mooy fegu muqbilan ala allah mu ñaanal ko tin na nekk koo xam ne kuy jublu yàlla jublu yàlla ci léppam ci yëngatoom ak dalam ay tukkeem ak i toogam lépp dafay jumbeyam kon boo seetee ñaan yooyu danga gis ne li ko Seydi Ali ñaana yëpp ci mbaax ak yàlla yàlla dajale na ko ci Seydi Ali wax ne bi imaam bi doo dafa jàng fukki fatiha pour sant yàlla ngir yàlla may na ko doom ji bokk ci Cheikh Ibrahima ak ku bokk ci Alxaaji Abdoulaye loolu dafay fàttali rek wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbih suuf su baax am bu baax ak tim wane na xéewal yàlla yi li war a jàkkaarloo moom mooy pour sant yàlla te waxtu boo sant yàlla rek yàlla dolli la tagg na yaayam te wax na jigéen bi waax la ju ragal yàlla ju nangam ju nangam ju nangam loolu li tey daal doon rek ne jigéen ji nañ dem uti meew yi meew yi dafa mel ni loolu rek la Seydi Ali li junj te li wax noonu bàyyi mas na koo bind leetar waxuma ci man euh, koo xam ne waxuma ci Fatou Zahra comme ku la jur damay wax ci yaay Xasan ndax ci Xasan la ñuy wax bay bi ñu ko leer ne ko maa ngi lay beñal ci yalla ne kii mala jox jigen ju bax la waxuma la ko ngir ne suma dom kon do man na am dom bu melni imam hasan Xasan bu nekk imaam boo xam ne ñëpp xam nañu imaam jàng na alquran wëntu ko ci waxtu ndaw ba pare ñu bari am nañ loolu ba pare sànkaat ko way moom ba tagu alquran jang na xam-xam ci ron baay ci baay amul caam ci baayam jël yar bi nga xam ni moy yari baay nga xam bogo boo ko xasee ba yow foo dem ragalat fi ne pour nga lab ci lenn ndax bu ñuy ragalal ni pour mu and ak ku bon moy mu nek ko xam euh, ni euh li melni keri da ndax wax ne keri du jaaru waye am na yo xam ne reñ jaaru ndax ñom duñ la ci keri këriñ bi mooy lakk ba jeex rek ñun ñu des sax ñooy soppi këriñ def leen ni neneen ndox mooy soppi safara bi doon lore dindi da nga tam waaye moom ragalul safara ku mel noonu nag war naa am nag ku nekk war naa dem fu nekk ku yàgg am itti la am am am ay bëgg-bëgg am ambition pour bëgg taxawal dara ak gëm óolu sa bopp ne ci góor ñi nga bokk war ngaa mën a def te loolu ñi yerwanteeg moom ci ndaw xam nañ loolu ba leen bàyyi Amadou Thiam di jàngal xam-xam ci biir dal bàyyi Amadou dafa toog bés nekk ku may ubbil Amérique xanaa ci kës la doon waxee ndax xam yàlla ko yëgal nit ñi toog am na ku ci ubbi Amérique ku may ubbil Amérique ñëpp noppi imaam yëkkati loxoom ne man kon boobu génn bu Sénégal waaye mu ngi xalaat dem Amérique waa Sénégal ñoo toog ba mu gis ne am nañu ay taalibe américain ñu tuddee ko les le marabout des américains waaye moromam yi dañ ko doon ooyee américain te boobu génn bu Sénégal pour dem Caire parce que daf doon wax ne danaa dem ba San Francisco loolu itte la Cheikh Ahmed Tidiane dafa wax ne himmatul insaani qaahiratun li takwaani kon mën nañoo bu ñu fàttaliku imam mën nañoo fàttaliku ci moom itte Cheikh Ahmed Tidiane moo wax ne ittey doomi aadama dafa dan mën naa not kawnu àddina lépp wax na ne law taallaqa himmatu l insani maa wara al arshi la naalatu ittey doomi aadama bu aju woon ci lu nekk ci gannaaw arab dana ko jot moo tax ñi gëm yàlla itte lañ ko tuddee ndax xam nañ ne lu sa ittee rëy rëy yàlla moo lay dimbali moo boo demee ci ñi nga xam ne xamuñ yàlla sax ñoom ité dañu gëm ne doomi adama ji projet la rek dégg nga ñi nga xamné existentialisme lañ gëm dañu gëm ne adina projet la nit ki moy të tëral projet am nangam damay nek nangam par force waaye nit mën ta force pour nek dara waaye yàlla doomi adama ji bu amé ité rek yàlla jox ko ay begg bëgg parce que kullun muyassarun li ma xuliqa lahu nit ku nekk yàlla daf koy yombalal li tax yàlla bind ko kon ku teel am itte la teel a am bëgg-bëgg pour pour nekk dara pour saxal dara pour doon dara ak li nga xam ne moom la fekk ndax fu fekk maam ju mel ni Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ak liggéey bu bu bi mu def ci lislaam ñëpp xam ko dégg mu yaral la boppam di la bàyyi xel ndax bàyyi daf koo bàyyi xel ba ñëpp xam loolu bàyyi daf koo bàyyi xel ba ñëpp xam loolu ci moom maa ngi gis benn leetar boo xam ne Cheikh Mahi Niass moo ko bind bàyyi boobu moom mu ngi mu ngi mu ngi keer mën naa am boobu moo mag ci bàyyi gi nekk foofu xam nga Naziru gaaw na faa jugee bim dañ fàttaliku foofu ne ñoo ñu ko bàyyi boo leen ñu dem xaaxira te lam wax ci leetar boobu damaa ñaan yàlla ngeen nekk ay wàll yu njëkk ngeen di judd yàlla def leen loolu muy Mouhamad Nazir Cheikh Mahi ba Cheikh Hadi Baba Lamin moom Seyd al Aqibu al imam ak Cheikh Mamoun ak Cheikh Makki ñoom ñëpp bàyyi leen di jox yóbbal ci leetar boobu di leen wax yar bi nga xam ne moom la bëgg ci ñoom ne leen te lii mooy li ma sama baay bàyyoon kon madrasa Cheikh Ibrahim yi la yëngatoom lépp ji ji njiyee fi bàyyi la ak bëgg-bëggam waaye li ma bëgg a wax ci leetar bi mooy Cheikh Mahi dafa bind bàyyi leetar nettali bàyyi gént bu bu sori xañ na sax moom bu déggee wax ji dël dana dox dana du xam fan laa jëlee leetar bi waaye àddina dafay dox maanaam ba fàttali waaye maa ngi ko amee muy nettali bàyyi gént gum gént yonantu ci gént gi mu si bàyyi gént gudd waaye wax ji fi mu jeexee loolu moo tax may nettali wax ji mu ne ko li ma ee mooy sa soppee bi Xasan Siise moo ma ee moo fëgg sama buntu di ma yëgal ne am na ne ci exemple waaye baati sa soppe bi loola sax may may may may may waxaat wax ji ndax nit dana am sët sët bi doo soppe <laughs> ma gis beneen leetar boo xam ne moo ko bind bàyyi ba tey di wax bàyyi ñëpp a lay nuyu xale yëpp a ngi lay nuyu ba ci kaa ne def attention bu ma bu ma waxee li ma xam daal xasan mu ngi lay nuyu moom laa xam ci moom daal loolu li firi mooy jokk na mbokk gi nijaayam yi ni meloon ak baaba leen ko ne xam na ko bàyyi ñuy teew teewal ko bàyyi moo leen boole am yaakaar ci ñoom mu jàng na xam-xam comme ni nga ko waxee tarbiya bako bàyyi ebalee mu jël tarbi Seydi Ali mu ne bàyyi toog ay fan gis mu ne ko foo nekk mu ne ma ngi ci jumaa ji bàyyi na ko déedéet yow ñëwal toog yow ñëwal di toog rek sama wet ci loolu rek ci la amee fat ndax bàyyi moom xam nga ne tasarrafu fi lwujudi kama yaxlu lahu ما هي لمن مملك مولك مولك مولك بابا دما كويس مولك مولك مولك موم ci ne mu ànd ak moom ndax yaakaar bi nga xam ne bàyyi am na ko ci ñoom cheikh ñoo bokkoon benn la mu dem jàngi bi nga xamee ne bàyyi koy boole pour mu dem jàngi mu ngi ko boole ak nijaayam cheikh abdullah ibrahim yes ànd ak ustaz barham diop jaar nañ ziyaare القدس دم بغداد بفري نيوب القاهرة باي فوفو مو نجك فوفو تي نجبور دي فوفو غناو بي لكو اي نجايم يب تكي سي فوفو مو غور غور لو تي نجانغام غور غور لو تي دينيم حاج مشري دا مين تري موني داو دانيو تافيك سيني منصور فال تي ci Jazaa'ir mu koy wax ne ko boobu imaam ngi dund duut wax yi nit ñi léegi yomb na bu bu jugee ñu wax ci moom ne xasan mi mi mel nii ba muy xale tim bañ nekkee Qahira sax noonu la mel xaaj misri nag mu ne ma xam nga seede yi yëpp baax na waaye seede ñi nga xam ne dañ laa xam ci ndaw xam ne nii nga nawee woon màggee nii loolu amatul ëpp moo tax xadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne samatu zilluhumullahu yawma laa zilla illa zilluhu imaam am na ci juróom-ñaar yooyu am na ci cër bu lëw imaamun aalim shaabun nashi'a fi saa'ati daa'i wa rajulun sa'atu imra'atin zaata mansibin wa jamaalin wa qaala inni axaafu allah wa rajulun ta'allaqa xaaliyan faadat aynaahu bittunun wa rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masjidi wa rajulaan tahaabaa fi daati daa'i wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa أخفاها حتى ما تعلم شماله ما تصدق به يمينه yéen su moo wax ci xadis ne juróom-ñaara ngi yoo xam ne yàlla dana leen keral ci ron keram bis nga xam ne kenn amul ker lu muy moom yàlla njiit du maanu ak ndaw lu sasu ci topp yàlla ndaw lu sasu ci topp yàlla dem dama nekk njiit nekk njiit du maanu ak koo xam ne dafa wéet ci ñaan yàlla ba dem saa ak ronkam koo xam ne jigéen ju rafet ju am ak sànn ak koo aw ci boppam mu ne ko damaa ragal yàlla ak koo xam ne xolam nga ci jumaa ji julli gum julli rek mu ngay xaar ba ca war a tegu mu dem jox ko ak ñaar ñu bëggante ngir yàlla bëggante ngir yàlla dem na fu nekk Amérique ba ba Trinidad ba South Africa moo këtt na barrage yu bëri te këttut barrage pour yàq waaye këtt barrage pour defar kon kooku xam na falam taxam al aqaba wa ma adraka ma al aqaba fakku raqaba aw itaamu fi yawmin fi masraba yatiman daa maqrab miskinan daa maqrab yàlla dafa wax ci alquran xam nga julli baax na lool lool lool ndax moom mooy état waaye bu déggee ñuy wax ne jiw këram rafet na fondement bi rek taxul julli nag moom mooy fondement bi waaye yàllaa ngi wax jaam bi ne lu tax jaam bi xëttut barrage bi maanaam barrage bi nga xam ne moo dox sa diggante ak àjjana lu tax xëttoo alxuraan bi la ndax xam nga baaraaj boobu lan mu ne mooy nga goreel jaam xam nga am na situation yi doomi aadama nekk jaam loolu lay nekk am bor mënoo fay jaam yi borom bor nekk daanaka ndax xamul bi léegi dundum bi naxaar wala nga dundalee ci bés ku xiif nga dundal wala yettiim jirim nga dimbale wala miskiin nga dimbale te loolu yëpp imaam dundam ci loolu la ko jàng na ci xaaxara waaye li muy jàng ci xaaxara ba tey soriwut soriwut yar yi bàyyi benn jamono ndax bàyyi mu ñëw foofu beneen fekk ñoom tim ñi ngi ñëw ba xaar bu ñëwee vacances waxtu wu nekk bàyyi dafay xir duñ tàggoog moom ñu ñëpp fàttaliku nañ te bàyyi loolu ci bëggeel gi mu bëggoon xam-xam ba nga xam ne ku teewee loolu moo taxoon nit ñi bëgg xam-xam waaye su ne di fekkee kuy jàng kenn faalewu la am ñaar du la ñuy faale la ba pare ñu ne xale yi nañ jàng loolu tax xale yi tayal waaye bàyyi bu étudiants dafay wax ne suma ministre yi fekkee ne am na gouvernement bu am ministre man yéenay suma ministre buy añ daf leen di oo buy reer daf leen di oo ba xënt sax daf leen di oo loolu ñun dañ ko fàttali fàttali na waaye ànd ak loolu yëpp mu ngi def muraqaba mu ngi seet waxtu wu nekk bu ci nekk lan la mel lan la def fan la nekk bés bàyyi dafa toog guddi mu soxla imaam oo Moussa nag Moussa dama ool ma xadda boobu kër sëriñ daan lay dal imaam ñaan mu dem foofu gisu ko dem fi mu foofu gisu ko mu ñëw ne bàyyi gisuma ko de nekkul bàyyi ne ko déedéet parce que demul fenn xam naa bu ci jumaa ji rek yónni wala di jàng alxuraan wala demal ci jumaa ji ah bu saa ñëw ci jumaa ji ba imaam ne ko naa parce que loolu mooy koo xam ne da nga am yarkat waaye tasuloo yaakaar Cheikh Abdullah Ibrahim Niass mas naa nekk ci ci ci ci tey bañ a bàyyi ak maam alaaji mu ne bàyyi dafa doon jàng guddi ba sondeelam jeex nangu jàng la daf doon jang, daf doon jàng am may la waaye daf doon jàng dañuy bàyyi suñu xel ci yooyu ndax moom bàyyi ma wax ne al ilmu taalaatu kasira mu ne xam-xam na ma ko jàng yu bëree di jàng ba sondeelam jeex mu génn pour ut sondeel ci guddi gi maama laa gis ko ne ay xanaa seen mu ngi commencé sax di yaakaaroo yaakaar maanaam fu mu jëm ci guddi gi lan la mu ne ko dama doon jàng suma sondeel jeex sondeel laay mu ne loolu laa mën a dégg kooku yàqut yaakaar yi maam alaaji ci yar waaye imaam tim yàqut yaakaar yi bàyyi ci ñun Moussa nekk Nigeria mu ne am koo xam ne dam ne ko damaa am xaalis koo xam ne dama bëgg a dugal Sénégal man ma ko léegi nag damaa bëgg nga dugalal ma ba ma ko dugalee léegi ma jox la xaalis boobu ngi fi si jaala su amee dara soxla lu nekk affaire bi war koo yomb ndax boobu indi Yusuf mooy ministre de l'intérieur mu ne indi damaa bëgg dem Sénégal te damaa bëgg suma saak bi kenn du ko gis nga boole ma ay police ba ci ba bi mu ne ba indi nangu mu ne ma xalaat ne bu ma ñëwee ba Sénégal ñu gis ko bu ñu ko waxee bàyyi li muy njëkk a wax mooy Assane loolu kon du ko def xam nga foofu mooy yar bi yar bi foofu lay commencé maanaam buñ ma gisee ci nangam buñ ma déggee ci nangam dem nag ba jomb nangam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent la waaye daan na ndaw yi bëgg dara mu koy jéem fekk na ma ma kay di déglu ay wëy wëy ceet mu ne xaara daal tey ma teg suma gàtt yefene dénkaane ko dem déglu ci wëy yi affaire bi neex na xol xañ na mu ñëw bëgg a déglu yàlla nelawal ko ba jant bi fenk mu xam ne lii du mbiram beneen yoon mu ñëw bëgg a déglu yàlla nelawal ko mu xam ne lii du mbiram moo tax bu fekkee loolu yonentu daf ci jaar jaamu yàlla yu baax itam dañuy jaar ci buñ ma déggee ci nangam buñ ma gisee ci nangam dem nag ba bu àgg ci bu ma kenn bu ma kenn déggul passé naa bu fekkee am na koo xam ne ci ngor rek lay waxee benn arab dafa wax ne wa taral ubuwata wal muruwata والفتوة في كل مليحة ذراتها هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي للخوف من تبعاتها قول بابا احنا من جم اك جمبو اك اك اك نينجا نك اك تم لول مومي تري ديف ييغا خامني ني دا فا نيه سي نيت ني ني ني لاقات ديكو ديف مان بوما لاقاتو سا دوما ديف بو فكاي نيت مان نا ام رك جمبو اك فوف ام تربيه بو خامني لي لي موخ موي تخليص النفس من كل ما سوى الله تبارك وتعالى فج طيب. بكن بي تاغالي كو ليك لودو يالا جيبال كو يالا كو بوبا اي نغتوم اك اي تمام ييب يالا باي دا وقت بن دين كانم دي فاتل حديث يونس صلى الله عليه وسلم باي دا وخني كونوا لله يكون الله لكم وكونوا لله يكون فيكم وهذان نعم، امانان عند الله من نيكال لين يالا يالا نيكال لين واي نيك لين سي يالا يالا نيك فيين من نياري غارانتي ني كو جاندي بيو يالا parce que yàlla bu la nekkalee doo yàqule boo nekkalee yàlla yàlla nekkal la doo yàqu boo nekkee si yàlla yàlla nekk si yow li nekk si yow di yàqu say mu toujours mu ngi fàttaliku bàyyi ak ay yaram fàttaliku boobu waxtu wu nekk ku am loolu bay mo len jàngal zuhd mo len jàngal zuhd moy dëddu addu te du dëddu àddina bo xamne ni nii servi la négatif dëddu àddina boo xam ne nii da ngay wut àddina def ko ci àddina bokku ak dama dëddu àddina koo xam ne da nga lott man lo am àddina da nga dëddu àddina ko ko ngay wax la ne Cheikh Omar Fouti da wax ne mu ne من لا يجد شيئا فهو عالس على الناس فهو من جنس النساء الرجال من يقول كان كو خامني نين لا انا دي دخو لو دارا مو ري بوكو لو كون فوق موي جانغال دي دد موي نو اوت كو با باري ام كو دد كو واي او ما كو دد كو فوق موم نعم نياك بيتا رك لوت امام نا اوتنا تو ليپ لو مور موم دي ام ام نكو واي ما تاوانيو كو فوم دم du nëbbu ne jullit la waaye dana dem dëkk yoo xam ne xamul kuy maamam du wax ne diw mooy sama maam parce que loolu mooy nit koo xam ne góor-góorlu na ba am ay qualité yoo xam ne doomu aadama mën na ci jëflante ak moom ndax askanu ci maam bi dëgg dëgg foofu mooy nga jël jikko yi rafet yi nga xam ne mu ngi ci moom te fu nekk la valable mën naa liggéey fu nekk daan na yëngatu ci commerce bi jënd ay or di di jaay dem ay Congo ak ku nekk bés mu ne mas na dem Congo yàgg fa lool nekk ay Sénégalais yi nekk Congo ci ambassade Sénégal ba Atlante ñoom comme seen Sénégal rek suise suise rek lañ ko xame waxul leen ne Cheikh mooy suma maam waxul leen ne man doomu benn sëriñ la waaye Sénégalais laa comme yéen nit laa comme yéen ngeen defee si nit rek ma defee si nit jàngal nañ ma ba ma nekk nit kenn defee borom xam-xam ma defee borom xam-xam jàng nañu ba nekk borom xam-xam ñi defee jullit ma defee jullit jàng nañu ma ba ma nekk jullit jàng nañu ma def tijaanee ma defee tijaanee donc ma ne man maay doomi diw pour ñu fonk fonkel boo xam ne moom bu fa kim doon ma kim doon doomam ko bokku ma ba bés bi muy ñibbi am ko ko wax ne ko siise ñëw nga ba dem sa waxoo ñëwaay kan waaye nag xam nañ ne ku la toppoon ba Sénégal xam ne bu kawe lu lu lu jóge loolu nag mun naa am ci tooma am bi nga xam ne bi mu juddoo bàyyi ma koy ñaanal mu doon ay meloom ci la ko jëlee sidna alxasan xam nga yonentu moo wax ne inna waladi hada sayyidu sidna Hasan, yonentu moo wax ne sama doom ji sang la sang duul mooy kuy rëy ci kaw nit ñi de mooy koo xam ne ku nooy koo xam ne ku ñëw rek mën a am place ci yow yonent moo ko ne suma doom bi sang la yàlla dana defar diggante ñaari kuré yi bëgg a yàqu ci julli ñi ci loxo bi seen xarit sang boobu am na leneen lu mu def moo xis boo xam ne bàyyi koy nettali buy wane sang canga cang dëgg-dëgg seen xasan dafa romb benn waaye mu koy saaga di ko xas waa ji di ko wax ñuy dox rek waa ji di xas bàyyi na xaw ma du ñu war a xas ci seen xasan koo xam ne maamam mooy yonent bi سيد ولد آدم baayam mooy Ali ibn Abi Talib sayyidul arab yaayam mooy Fatimatu Zahra sayyidatun nisa maamam mooy Xadija nga xam ne yonent baa ngi koy jotal nuyoo yu tukkee ci borom yàlla ngi ko dëggal ci lox ci lam yonent nekk boo xam ne mu ci àjjana benn coow nekk ba benn nës nag nekku ku ko dimbalee ni yonent bi ba mu taxawal mu taxawal ku koy maam kooku lu ñu war a wax ci moom amul lu waaye la wanee ne baax ci la bokk mu seen al xasan waaye bi mu xas ñu dox ñu dox ñu dox ñu dox ba jege mbooloo ni mu ko taxawal nga mottali li nga amoon ci wax bi ñaaw parce que damaa ragal bu ci mbooloo mi nga may xas ñi ñi ñi dóor la wala ñu lam waa ji ne ko maa door a seede ne yow doomu yonent bi nga ndax ku lay xas nga koy fexeel muccal ngay seet nu muy def mucc maa ngi door a seede ne yow doomu yonent bi noonu la ñuy bokkee ci bu kawe loolu nag imaam na ci mësal bu wax naa sànq ma ne jàng nañ ñoom jàng nañ zuhlu ci bàyyi ndax ma sëddañ di tàggali ko jotaay yooyu ak dàq yooyu nga xam ne bàyyeen koy joxe di dégg li muy jublu ci ay junjëm nettali na moom dañu nekk teer bàyyi ñëw nekk gan ci am dunaaw ku nekk ci dëkk di jàng président bi invité sa bàyyi invité sa maam xam nga boobu nga war a mën mu ne ba ñuy dem ci ko ci audience boobu moom ak sëñ maamun ak sëñ yi ñu am ak bàyyi ñoom ñi wax ci seen biir ne buñ gisee abdoulaye sër dañ koy ñaan mu may ñu kër ci keer ñu luyee kër ah dañ daan luyee bàyyi rek ay dimbale léeg-léeg ñu am léeg mu neex léeg lay mu naqari sax yaan ñu mbay mu ngi xam na wax mu ne biñ accès ba bàyyi ñu yante abdoulaye ba bare ba Abdou Nasir jublu di leen nuyu ne su ma rakk yi luñ soxla bàyyi na ko soxlawuñ daan ndax ndax owéete mi ngi leen booleeg owéete mi ngi leen booleeg defal na leen lépp luñ soxla te boobu owéete amul dara du nekk ci loxoom lu mu leen mën a jox lu may bourse majlis ala waaw ah. bourse majlis ala ci université bourse rek la leen mën a jox bourse boobu boobu mën dara waaye bàyyi na ko soxlawuñ dara ndax owéete defal na leen def xam nga kooku mu ngi lay won ne ah sama maam àgg na ci buur bi rek bul jàpp na yow tim léegi sa maqaama maam nga amee yow it buur bi daf laa war a jox kër comme sa maam sa maam dafa bëgg nga góorgóorlu pour jaar ci yoon yi ba àgg jamono dox na di dox di dox di dox ba imam tukki London nekk ci aéroport te seeg awéyta ci aéroport xàmmee ko ndax moom lañ leen boole woon nag pour mu leen dimbale imam may du xaalis bu wëri boo xam ne soxla na ko ci jamono boobu nag bu fekkoon ne bàyyi daf leen a bàyyi rek ñu sukkandiku Abdou Nasir may nañu kër dootuñ lee duñ xalaat duñ ñaan yàlla duñ nàngam parce que ñu ci bëri da ngay ci ay tolof tolof yoo xam ne ni moo lay taxaw nga euh, jublu ci ñaan yàlla bëgg yàlla di ñaan pour yàlla tekki la sa jafe-jafe rek da dem nag ba ba ba ba yàlla neex la nga bëgg yàlla xaaratoo ci daal loolu dañ ko jàng ci moom ci dundam dem na ba ñib si xaaxara indi licence am bëgg liggéey waa liggéey jox ko liggéey ne dañ koy fay sax deux cent cinquante mille ci jamono jooju dañ koy def mu nekk ilimaan dañ ko jox lii dañ ko jox lii mu yónni ni jaayam Makki ci Baay pour mu waxal ko sëñ Makki dem ci Baay wax ko ko Baay waxul dara dama am ay fan bàyyi mu ñëw ci bàyyi bàyyi ne ko dégg naa li nga wax waaye bu fekkee da ngaa bëgg a dem liggéey baax na waaye bu fekkee li ma bëgg moom ngay def damaa bëgg nga dem London nga jàng anglais damaa bëgg nga dem London jàng anglais imaam mu ne bàyyi man kay sa ndigal rek laay topp waaye London dafa cher te man aw ma bourse aw ma dara bàyyi na ko demal rek boo demee sama ndimbal daan la xel te boobu ndimbal bi dugut xaalis bu ñuy yóbbu nii waxtu bu nekk bàyyi du téye xaalis day toroxal xaalis boo xam boo xam ne ba kenn ci mag ñi wax ne ni ma gis sëriñ bi di def xaalis nii ci laa xamee ne wàllu yu kaamil mu dencut xaalis bi yónnee ay doom ci ay weer wu jël alaa ay ci xaal imam dem na lool ba xam nañ ne ci lool la nguuru foofu la ko bye, fekk te mu ko ci kanamam muy gëneel boo xam ni yàlla ko ko jagleel waaye bi muy nekk London di jàng di faju mu bi dem bàyyi jox ko xaalis jox kër fay ne ko joxal xasan lii bu may seet nii mu jënd ci biir ko mu xool ne ko ah bëgguma delloo lépp lu jógee ci bàyyi xaaral ma jël nangam ci xaalis bi waaye li ci des delloo ko bàyyi biir bi ma ko nar a seet am naa biir retour bu may ñëwaat semaine bii jubli si sax pour seet si ko jënd naa biir bi ba pare réservé la góor di mel ndax bàyyi bàyyi du porte montre te saxu kooku bàyyi nga koy bàyyi nga koy yokk fit pour xamal ko ne góor nga war a nekk xam nga bàyyi yaram yar bu baax xam nga baat boobu yéen olof ngeen tukki leen ji mel ne ngeen ngeen firee baat boobu yar bu baax ak nit ku baax ak jullit bu baax koo xam ne bu lay yar waxtu bu nekk mu ngi lay wan ne mën ngaa doon lu nekk ba yu tuuti imaam dafay nekk mu ne bàyyi dafa nekk teer war a ñëw Sénégal wala war a jugee foofu war a bind ci valise am mais amuñ luñ tax pour bind ci ah mu ne bàyyi buñu ñu wutee suukar rek mën nañ koo taf xam nga loolu lu simple la jël suukar rek def ci këyit gu weex taf ci kii bi bind bàyyi na ko asan bu ma demee dama wax sëriñ Aliou ne ko asan xam na loo xam ne ñun xamul xam nga loolu lu tuuti la jël kay def ci suukar taf waaye yar bi moo nekk noonu mooy lan mooy koo xam ne sëriñ bu yàlla may ba mu wax ne waqad tamma fathi inda mahdi wa qad ala jamiu rijali lxaybi taxta qadaa'i bàyyi nee na su ma fëtfu mag na te maa ngi ci maa ngi ci berso maa ci lal ndaw góori xay bi yépp nekk ci sama ron atte nga xam kooku ne loolu la mooy dimension am ba pare mu lay gëmal ne yow war ngaa xam lu mu xamul loolu yar bi la pour wan ne bul taxaw demal demal ci kaw yar la boo xam ne daf lay wan ne mu ngaa doon lu nekk parce que nit ki buñ ko gëmalee rek ci waxtu ndaw toppal sale xale yi dañoo dooj ñu bëree ngi rey seen Uh, your love, your smile, your compassion, your magnanimity, your generosity, your beauty, your character, your perfect exemplification and amplification of the life history of the Holy Prophet Muhammad. And so, no doubt, till we leave this world, we would ever say, Wangaza Imami. Imamul Maraya, Imam Hassan Sise, Wangaza Imami. Hey, eh, Wangaza Imami. إمام baraya, إمام Hassan Sisi." Waza. Sing it with me, everybody. Waza imami. Imamu Hassan Imamu Hassan say. Waza imami. Yeah.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 بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قرر الدار العظيم إيه، وهذا إمامي إمام البرايا إمام حسن سيسي وهذا إيه، وغدا إمام البرايا إمام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما أغلق ولا خاتم لما